ma wax seeni député sunuy député suma xarit suma genn wàll sax laay wax koo xam ne lu ko neex neex na ma lu ko metti metti na ma ne ma dañ lay invité yaakaar naa mbégte munta weesu loolu ba ca tegu dama dégg ci ay kàddoom mu ne Bawol dafa am taxawaay bu mu war a am bu mu taxaw mu neex ma loolu ndax ku xam liggéey bi ñu dénk ci gouvernement bi xam ne pôle territoire yi dafa war a nekk lu ama ama am solo su ma déggee sunu kilifa gi sunu xarit bi sunu leader bi wax ne Bawol dafa am nu mu war a taxawee damay gën a am mbégte li koy gën a wéral mooy démb dégg ngeen suñu président le président Ousmane Sonko mu ne campagne bii di ñëw campagne par pôle lañ koy def te loolu dafa wan ne député yi bokk bawol yëpp leader yi nekk bawol yëpp war nañoo dajaloo campagne te meeting boobu ngay wax du doon meetingu Mbàkke de meetingu bawol lay doon ndax bawol li mu représenté ci démographie Sénégal kenn xamut mu toll mooy région bi ëpp nit bi ëppi électeur donc ñun dañoo war a nekk benn yëkkateendoo di dóorandoo fu Ousmane Sonko déggee waa Bawol rek xelam dal xam ne feneen lay am jafe xalaat waaye di doon fii li ma gën a bégloo tam mooy jotaay bi rafet na député yi seen présentation am na solo amoon naa yéene sax gën fee teew gën fee teel a ñëw waaye ñun njaareem tam ñu ngi doon teg sunu comité moo tax ñu yéex a yegg si du ma guddal wax ji li may wax rek lenn la mooy ñun ñëpp daañu ànd nekk benn fu ngeen liggéey bi jubloo incha allah su ngeen gersoo gis ñu seen wet ñu ànd doxal ko lenn rek moo am solo lenn rek moo am solo projet PASTEF bii nga xam ne dañ koo yëkkati ay bakkan da am ñoo xam ne dañ cay dem kaso am ay kër yu ci tas am ñu ñàkk seen liggéey tey askan wi am yaakaar si ñun ñu jël projet agenda deux cinquante juróom benn weer rek lañ ñu fal bi PSE plan Sénégal émergent toogee ñaari at Macky Sall tey mu ne yoonu yokkute suba mu ne SNDS toog ñaareelu at donc ñoo wax plan Sénégal émergent Bassirou Diomaye Diakhar fay ak président Ousmane Sonko juróom benni weer ñu génne audit bu clair ci réew mi tegal ñu agenda sur vingt cinq loolu lan moo koy fay dama ne bu ñu gën a gore gis nañ le président de la république wax le premier ministre mu wax ministre des finance mu yóbbu ay loi pour financer Sénégal ñu dem assemblée ba bañal leen ko teg ngeen ci seen bët mu leer leer ne assemblée bii buñ fi tegee ñun fi warul teg projet bii la ñu jéem a gàllankoor loolu est-ce ko seetaan est-ce que dinañ ko seetaan am na loi yoo xam ne loi yu ama am solo dañoo soxla trois quarts député pour mu jàll sans jafe-jafe est-ce que dañuy jox jomaay lu lu yées plus de cent cinquante députés loolu la ñuy def 160 lañ doon dama ni nawoon fawoon incha allahu rabbi ñu ànd nekk benn wër njaareem def bawal gi yëpp def fi meeting yoo xam ne kenn mësu cee teg bët loolu rek loolu rek loolu rek la mën a fayee le président Ousmane Sonko ak son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye la ca des nag sëñ Cheikh jiitul maa ngi sa voilà monsieur la ministre le ministre bu Bawol ngeen mayal ko loxo rek programme bi ñoo koy sant ci présence bu présider bi jotaay bi présentation suñu candidat yi sa candidat ñoo nekk noonu ñooy candidat Bawol candidat doon ay fierté pour Pastef département Mbacké gi yëpp donc ñu ñaan nga accompagner leen pour donc leur victoire jaa ngeen jëf monsieur Niang jaajëf seen sami internautu Mouhalim Info Mouhalim TV euh, ba tey euh, fii ci euh, Mbacké ci présentation de candidats bi nga xamante ne bi Pastef Touba moo ko fi woote ci njiital la coordonnateur Cheikh Thioro Mbacké donc actuellement yaakaar naa ne ñu ngi ci phase finale yi léegi rek incha allah ñu daal di tëj nga xamante ne bi moom moo jotaay bi daal di dellu si donc suñu Assane moom mooy def ñaan noonu honorable député Cheikh Serigne Assane Mbacké moom mooy def ñaan ngir ñu mën a yëkkati li nga xamante ne bii moom mooy de jotaay bi waaye itam di leen fàttali euh, que vous êtes en direct ci fi nga xamante ne bii moom moo di euh, Mouhalim Info Mouhalim TV comme di leen ko waxee léegi Mouhalim euh, ngir tam seen i bànneex saa sunu actualité amee rek dañuy wàcc si terrain bi waxtaan ak ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo di askan wi waaye itam waxtaan ak ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy auditeur yu Mouhalim Info Mouhalim TV kon mbokk